salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar wa fi safar réew mi nag li ëpp ci ñi daan nax nit ñi dañ leen daan nax ci ay wax waaye moom li muy wax dañ koy gëm ndax dafa jëf dafa ñëw jëf ci yoon wi jëf joo xam ne bu waxee ne bëgg naa liggéeyal Sénégal bëgg naa liggéeyal sëñ Touba day doon loo xam ne lu ñuy gëm la ndax mi ngi ci nekkoon ci waar di ci soox kon nag su bëggee ñu ñu ñu jàppale ko ci ba mu mën a taxaw liggéeyal sëñ Touba nekk loo xam ne lu ñuy gëm la bi ma ko waxee dama ko ne man moom na ngeen xam ne maa nga ca biir fu fu ngeen ci egg rek danaa ko ci egg incha allah ci lañ ne ma nag dañoo bëggoon ñëw fii ceew ndax Ablaye euh, daf leen wax ne balaa mu cee tàmbali dara. day ñëw fii ci yow comme ni mu ko daan defee ci leneen lu mu mënti doon talal la ay loxoom nga ñaanal ko jàppale ko ci ndax bëgg na ci egg fu sori nee nag gëm na ni moom dina ci egg fu sori ndax sëñ Fallou muy joxe mbir yi xam na ne dina dina ko jox waaw loolu daal moo doonoon kàddu yi Mbacke. Euh, sëñ Saliou sëñ bi nee na bëgg na ci xalaat gi ak ñëw gi. nee na si si Abdoulaye bu bu bëggee liggéey ci réew mi ak yoonu Sëñ Tuubaa dana ko yomb waaw nee baat bi wolof yi wax naan jote mooy jiitu joote moom ab Sëñ Abdoulaye loolu la def dafa doxal ak jote kon bi mu ko doxal ñooñu ñëpp dañuy ànd ci li mu bëgg neena li ma wax dëggal nee na barabu suñu fàllu bee bu ma fa demee damay wax ne gis naa lu nekk ci liggéey aw melo waaye melow liggéey bee nag wax dëgg yàlla maa ngi koy doo gis nag te defe naa sëriñ abo moom itam noonu la ko gisee noonu la ko gisee moo tax bëgg-bëggam bii ñu ngi ciy jiital sëriñ mun taxambaki di ci jiital njaboot sëriñ Tuubaa yëpp te xam ne moom day lum sumb senegal dana ko ci jàppale yoonu murit dana ko ci jàppale yoonu murit buñ ko ci jàppale kenn fenn du ci jiitu ko sëriñ Fallu ndax lim defal sëriñ Fallu de ñëpp waroon na daje dajal li am def ko moom kenn mu def ko moo tax defaale nañ ko ñëpp lu xalaat daal mu nekk ci xelam na xam ne yàlla dana ko jàppale ci ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke nee na sëñ nit ku yéeme la waaye ndimbalul yàlla rek xam nga yàlla bu lay dimbale day fekk nga doon jàmbaar di góor góorlu mu fekk la ci njàmbaar ga ak góorgóorlu ga dimbale la sëñ Ablaye noonu la def dafa doon jàmbaar di góorgóorlu te góorgóorlu ko lépp mu bëgg ci lu baax rek te yàlla ginnaaw yàlla nag dafa bëgg jaamam ñi daf leen bind ba noppi bëgg leen képp koo xam da ngaa jëmee ci ñoom lu baax jëmee ci ñoom teraanga ak jàmm yàlla moo lay jàppaleel boppam fi soobu yàlla li bëgg yàlla ko ci jàppale yàlla na ko yàlla def nee sa rakkam ji Saliou li ma ci wax moo ci nekk nee na depuis Saliou mi dafay ñëw yoon yu bari yoo xam ne lu mel ni lii sax taxu koo jóg li ne li ne ci magam ci sëriñ Ablaye suñ Fallu moo ne ci moom rek moo tax muy nemi kër sëriñ Fallu saa mu nekk ñu ngi koy ñaanal muy faram gudd sëriñ Aliou faram gudd ñi ñi nga ànd seen aajo faju ci yëf yi yàlla nañu ko yàlla defal tàllal leen amin amin amin barke Cheikh Abdou Samad barke Cheikh Ibrahima Mbacke barke Cheikh Abdou Lat barke Cheikh Abdou Khadir barke Cheikh Saliou barke Cheikh barke Cheikh barke Cheikh Mourou Seng barke Lay Bera barke képp ku mas a liggéeyal yàlla liggéey bu mu nangu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 président Abdoulaye Sylla président Abdoulaye Sylla moo ñu wax ñu demal ko ci askan wi waxtaan ak ñoom euh, jottali leen lii nga xam ne nii moom la moom la ñuy créer muy association patronat bi tuddee ko C50 préférence nationale ne ñu ñu dem ci gox goxaat yi lu ci mel ne ci département yi 46 département yi ci Sénégal fépp fu ñu ci dem rek ñu ñoŋal fa créer fa kër C50 kër C50 boobu mooy répondre ci difficulté yi yi ñuy ñuy jànkonteel foofu difficulté yi ñuy jànkonteel foofu képp ku fa am entrepreneur yi nekk ci gox boobu képp ku fa am ay difficulté day ñëw ci représentant kër cinquante boobu noonu joytu ko fa entreprise yi nga xam ne nii ñoo nekk ci kaw C50 jiital ci président Abdoulaye Sylla ci participation bi ñuy def di ko jébbal ka jiitu ci ci kër C50 ba ca gox boobu ñu xool ci loolu jéem ci saafara mbir mi Abdoulaye Sylla nag dafa dafa commencé ci loolu wan nit ñi yoon bi wan gi mu wan nit ñi yoon bi mooy dane damay tàmbali jël ci sama poos bopp def ko addiyee jébbal ko coordonnateur c cinquante ba nekk ci gox boobu pour difficulté yi askan wi di jànkonteel foofu ñu ko ciy mën di saafara te yoonu murit bi dafa soxla maanaam président boo xam ne nii day sujjóot toog ci suuf di sujjóot te Ablaye Sylla day incarner mouridisme pur et dur ndaxte saa yu ñuy waxtaan damay faral di dénk ñaari baat danaan man sëriñ Touba mooy sama sëriñ Cheikh Rafal mooy sama royuwaay ba tax na loolu daal concept mouridisme la jël jëmmal ko ci ci C50 googu ñu lay ñaanal nag Mbàkke Bàlla yéen ñi nga xam ne yéen yéenay suñuy wéeruwaay nga ñaanal ñu suñu suñu kilifa googu yàlla may ko ndam ndam lu kawe njortam xam naa ne ndamam mooy ndamu Sénégal mooy ndamu askan wi mooy ndamu murit gépp ñu ngi lay ñaan nag Mbàkke Bàlla ngeen taxawu ko bu baax a baax ci lii nga xam ne nii sumb na ko mu génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin comme ni ma ko waxee sëñ saaliwu léegi rek nee naa ko soxna si moom moo am yéene boppam ci ci ablaay ba tax lépp lu mu nekk rek mel na ne moom soxna si dina nekk ci ginnaawam waaw ndax bi mu déggee yëngu bi rek man ci la ma wax ne ma maanaam euh, am naa yéene daal jàppale ko te tamit lépp lu mu nekk ma nekk ci donc soxna si nag ku ko xam moom xam ne kilifa la tey euh, du du du jàppantu mm-hmm. waaw ñun xam nañ ci moom loolu daal xam nañ ne lay jàpp wër wala wala mu kii waaye du jàppantu moom waaw donc loolu daal moo taxoon tey suñ tànk yi ñaanal danañu jàppale waaw zahiran wa baatinan waaw waaw am nañ ci yaakaar incha allah nag dafa nekk benn mouvement boo xam ne dafa nekk benn mouvement boo xam ne day dox ci développement politique de développement ci lay dox waaw ci lay dox maanaam ci formation mais aussi euh, ci encadrement muy regroupement yi wala mbootaay yu jigéen yi wala xale yi yi nga xam ne dañoo bëgg entreprendre ci benn domaine dañuy dem di leen gunge léegi nag waxtaanoon ci maire bi mu am ci idée yu rafet waxoon na koñ bi am na ay mbootaay mais dañoo amul ku leen defal formation mais aussi amuñu ku leen def euh, ku leen jox financement léegi nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci acte man nag sëñ Abdoulaye mais ak Serigne Djili Sankhé am nañ li tubaab naan savoir faire mooy man-man bi li tax nga defal nit formation am na ci ñun mais nag lan moo ñu manqué woon mooy financement ma ci waxtaan di ci waxtaan ba Serigne Saliou mi jot Serigne Saliou si la duma ma leen ko présenté seen doom la seen rakk la ci koñ bi la juddoo fu la màggee léegi ñu ci waxtaan mu ne ma benn doo euh, taaw papaam bi nga xam ne moo jiite c cinquante FN pré PNA ah. préférence nationale moom dafa am benn société bu ñu naan Ecotra société bi boo ko gisee euh, veille màggal gi mooy bu ñuy jub màggal gi mooy euh, li li waa naan benn benn yi ngeen gis mooy couleur jaune yi te ñuy sëkk Touba moo waaw moom moo ko moom magam moo ko moom moom moo koy def ngir yàlla ngir jëmmi Serigne Touba di génne taataa yi nekk ci dëkk bi. kuréel yoo xam ne ñoom ñoo fi daje tey bi ci jiitu di. Euh, Euh, c cinquante pn muy kuréel goo xam ne seen mbokk fii ci koñ bi di Abdoulaye Sylla magi Baye Sall mii moo ko taxawal li ko tax a jox git mooy yaakaar naa ñoom dinañ ko leeral sax waaye rek fexe ba moom réew mi des ci réew mi man dama koy tënkee noonu ci gàttal mooy lépp loo xam ne lu ñuy def ci réew mi la doomi réew mi def ko mu ànd ak nag ñun waa ACT suñu liggéey fii ci Touba. nekk xool nu ñu def ba ndaw ñi ak soxna yi nuñ leen dimbalee bañ mën a amal seen bopp mënal seen bopp te loolu it lu ñu sukkandikoo la ci njàngaleem ko baax ki amal seen bopp am xëy loolu moo tax ñun bi ñu jógee ñu jëmale suñu liggéey ci di defal jigéen ñi ay formation <coughs> formation yi teguñ ci benn charte mooy nit ki na am lu mu man rek demal boppam formation yooyu yooyu timit day aju ci transformation surtout nag liñ gënoon a seetlu mooy nit ñi dafay mel ni dafa bari loo xam ne nii dafa yéeme ci ñoom muy xeetu jus yi ñuy dem di ko jënd ci grande surface yi moo xam épicerie la wala lu doon dañ la koy jaayee lu cher te fekk nañ koy defaree bu la ko waxoon da ngay xam ne lii jarul mille francs te mën nañ la ko jaayee 2500 ba 3000. bëggoon ku ñu jàppale daal ci affaire financement yooyu bañ bëgg a liggéey ndax ku ne xam nañ ne waa Touba bëgg nañ liggéey mais am-am yu demewul noonu ñu bëggoon na ku ñu jàppale bu baax. waa lii masse douane la carotte ak navet lañ ko defaree loo tam sirop la junjeer la moom lañ defal sirop nii day dire si mois mais du def dara boobu tam mooy buy bi beneen pot bee tamaate loxoti la lee tam kaani la ñun ñoo ko defaral suñ bopp. sañoon mu dañ fi ndax dangay gis des fois ku yenn ca marché ba suba ba ngoon jot bu jaayee 500 lay wàccee wala 1000 francs nga na sa coono ñii ñi ngi jaay ay kafe ñii di jaay ay crème comme ni ngeen ko waxee sànq te gisuñu ci suñ bopp daal te liggéey bi silvissé na wax dëgg yàlla yàqalul kenn leen. suñu amee nag ku ñu dimbale ci formation dimbale ci financement ñu mën a liggéey moom danañ jël yàlla loolu lañ lañ bëgg ci ku ñu ci mën a dimbale ah. moo ñu gënal gone yu góor yi ci koñ beeg gone yu góor jigéen ci koñ bi ñëpp kenn amul dara loo def maire yi ñii bu ñu xëyee dem marché ñii ne ci crème bi nii ne ci leneen tamit mun ngaa nekk fukki at daanaka li ngay liggéey du changé doo si gis yokkute it doo si gis yokkute ndax loo xëyee tey bu subaa boo jënd jee loola moom ci la ngay jënd nga lay yem mbaa nga leb dolli ci kon bu ñu gisee ku ñu jàppale ci financement jàpp nañu ci ay kii formation wax dëgg yàlla dinañu gënal kontaan dong lañ ciy def ndax bàyyi laa la mi moom kii mi moom sëñ Saliou mi moom xam naa ci suñu loxo la judd ba toll toll kon moom xam nañ ko kon bu jógee fee ñëw ci koñ bi bëgg a jàppale waa koñ bi day def li ko war waa koñ bi tamit war dañ ko delloo njukkal. di am mbégte ak kontaante ñëwaat fii nga xam ne nii fii laa dëkk fii laa defee lépp. mun nañu wëral leen ma. ci pôle de développement yi nekk Sénégal yëpp maanaam ci 46 départements yi maanaam ci campagne de sensibilisation boobu lañu nekkoon ne fépp foo leen dem na ngeen ma fa fexeel ngeen créel ma fa Kër se 50 Kër C50 boobu buñ ko créé day am représentant C50 bu nekk ci biir kër gi di jàppale suñu yaay yi comme ni ngeen ko waxee léegi ci wàllum transformation locale yi di leen ci tàggat. bañ am benn capacité bi ñu financer leen ñu demal seen bopp moo tax fépp fu ñu jaar moo tax loolu day day rejoindre tuuti concept euh, association ñoom Xaadim Njaay bi ak sëñ Abdou Lahad muy acte parce que ñoom daanaka lii ñoom ñoo ñu ci jiitu moo tax liggéey bi fii amaana dina dina yomb lool parce que déjà bu ñu amee ku mel ne Abdou Lahad ak bi muy wax léegi technicité bi muy wax li mu doon wax ci technicité ak démonstration bi mu fi def kooku day neex a liggéeyal ba tax na bi mu waxee rek sama xel dafa dal dama ne ñun lii lañ doon wut comme que lii lañ doon wut ma man tamit ma am ay yéene bëggal ko fa nga xam ne nii fa laa soqee ko fekk fa produit ba ma doon wut amaan am naa yaakaar ne ñoŋol ko dina yomb ba tax na problème de financement boobu noonu moo tax si la apporté ci solution boobu nañu fépp foo leen dem. na ngeen fa créer pôle C50 mu am ci biir école c cinquante am ay formateurs moom ci poosu boppam mu jàppale leen yéen femmes yi suñuy papa yi suñu yaay yi suñu mag yi suñu rakk yi ngeen di développer seeni activité de façon indépendante te loolu muy def noonu da koy def addiye da koy def te xaaru ci dara loolu bi ñu ci waxtaanee maa xaarim moo waral ma ne naa ñëw baaxee leen information boobu bu ko defee fii bu ñu fi jógee dinañ tënk li ñuy tënk bu soobee yàlla ñu déroulé lool xam naa ni lu ci mënti am ay information complémentaire yoo leen ci bëgg boo leen adressé woo ci xaadim wala ci Cheikh Abdou Lahad dinañ remonté li ñu war a remonté bañ am ci luy kayo suñu njor maa ngi leen di jaajëfal nag di leen tatagal bu baax parce que woote ñu wuy si lay yombul ba tax na lii ma gis fii nii jagle la ba pare lii ma gis fii nii détermination ak abnégation bu mat sëkk la moo taxit man sama xol sax dafa fees ba mënumaa wax moo tax daal message bi message bu am impact lay doon te dinaa ko jàllale ci niñ ko war a jàllale ba lépp lu ci am dinañ ko waxtaanewaat bu soobee yàlla di leen ñaan nag gisaat leen ci yeneen échéance bu soobee yàlla maa ngi leen di jaajëfal yeen ñëpp di leen jërëjëfal